soxna mbenn ngaabu soxna mbenn ngaabu mi ngi gane àdduna ci atum 1922 ci dëkk boobu di ngaabu dëppoo woon ak muy bisub alxemis fukki fan ak ñett ci mois de juillet ci atum 1922 alxemis fukki fan ak ñett ci mois de juillet ci atum 1922 mu tombe woon ak bisub alxemis fukki fan ak juróom ñaar ci weer wi di weeru digg ci atum 1340 ci gàddaay gi alxemis fukki fan ak juróom ñaar ci weer wi di weeru digg ci atum ci gàddaay gi ci dëkk boobu di ngaabu la ganee àdduna ci atum 1922 soxna mbeen ngaabu mi doomi soxna faati xujja mbàkke la soxna faati xujja mbàkke doomu cheikh ibrahima mbàkke la bu mbàkke kajoor cheikh ibrahima mbàkke mi bu mbàkke kajoor ñu ci bari sëriñ mbàkke kajoor lañ ko gën a xamee cheikh ibrahima mbàkke mi ñu gën a xam ci sëriñ mbàkke mbàkke kajoor doomu maam balla mbàkke la mook maamoor anta sali ñoo bokk benn waajuru góor te moom la maamoor woon sëriñ tuuba seexul xaddiim ngir mu nekk lii di waajuram ba seexul xaddiim sax daana wax cheikh ibrahima mii ñu gën koo xam ci sëriñ mbàkke mbàkke kajoor waajur kon soxna faati xujja mi di doomu sëriñ mbàkke kajoor moo jur nag soxna mbeen ngaabu mii mii doomu sëriñ tuuba seexul xaddiim sëriñ tuuba seexul xaddiim mii waajuru soxna mbeen ngaabu moom itam mamor anta sali mbàkke mooy waajuram mamor anta sali mbàkke maam balla mooy waajuram maam balla moo mbàkke ak sëriñ mbàkke mbàkke kajoor mi kon soxna mbeen mbàkke ngaabu mi ay waajuram yépp ñoo bokk benn maam muy maam balla soxna mbenn mbàkke ngaabu amul kenn nag kum bokkal waajur wu jigéen kon benn doom la ci soxna faati xujja mbàkke mi bu mbàkke kajoor soxna mbeen mbàkke ngaabu bim ganee àdduna ci 1922 ci dëkk boobu di ngaabu sëriñ tuuba seexul xaddim mi ngi woon ci résidence surveillée ci dëkk boobu di njaareem ginnaaw bu mu yëgee na soxna faati xujja mbàkke mi am na doom bu dañ ko tudde soxna aysatu mbàkke fekkoon na nag sëriñ tuuba seexul xaddim amaatoon yeneen ñaari soxna aysatu soxna aysatu mu ne nag mag ñi fexe woon nañ ba wutal leen lii di ab dàkkantal ndax ñu mën a xàmmee ñetti soxna aysatu yi sëriñ tuuba seexul xaddim yi kon soxna mbenn mbàkke ngaabu soxna satu mbàkke lañ ko tudde waaye lim ganee àdduna ngaabu moo waral ñu koy dàkkantale soxna aysatu mi ci ngaabu ñu koy wax soxna aysatu mbenn ngaabu am na mëneen soxna nekkoon nag ci dëkk bii di gaawaan moom itam mag ñi daanañ ko dàkkantele soxna aysatu mi ci gaawaan moo tax rek ñuy wax soxna aysatu mbàkke gaawaan amoon na meneen soxna aysatu mbàkke mu nekkoon ci dëkk bii di mbàkke kajoor moom itam lim féete woon mbàkke kajoor moo tax ñu ko daa wax soxna aysatu mbàkke mbàkke kajoor kon ñetti soxna aysatu yi lii moo waroon rek seen tur yooyu nekk ci seen ginnaaw tur yi ndax mag ñi kat soo masaa wax aysatu laataa ñuy laaj mum ci door nga teg ca dëkk bam nekk dana gën a a laaj bi kon lii rek moo waraloon soxna satu Mbàkke yi menn mu ne amub dàkkantal waaye ñëpp xaadimu rasuul mooy seen waajur kon lool moo waral nag soxna satu Mbàkke mii ñuy waxtaanee ganee àdduna ci ngaabu ñu koy wax soxna satu Mbàkke mbeen ngaabu bu leen fàtte ne satu mooy mbeen te assu itam mooy mbeen moo tax fu ñu tudde soxna satu ñu teg ci ngaabu wala mbeen ngaabu laataa ñuy ñëw ci am njàngam ñu wax leen tuuti nag ci waajuram wii di moom Seex Ibrahima Mbàkke ñu xam ci sëriñ mbàkke mbàkke kajoor moom kenn rek la bokkal waajur wu jigéen ci mbooleem njabootuk sëriñ ibrahima mbàkke mbàkke kajoor mii ñu koy wax sëriñ mbàkke soxna aan mbàkke waaye amoon na càmmiñ itam ku ñuy wax sëriñ habibu mbàkke imaam moom soxna faati xujja mbàkke mi bu sëriñ ibrahima mbàkke mbàkke kajoor ku mokkaloon alxuraan la te ku ko teeloon na wattu la loolu nag taxoon na waajuróom wii di sëriñ mbàkke mbàkke kajoor te mamor anta sale itam ko doomam ji di sëriñ tuuba yooyu nag boole leen soxna faati xujja mbàkke mi bi mu nekkee njaareem ci kër gu mag ci ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddim seexul xaddim daana def ñaare su amee ay gan woolu soxna faati xujja mbàkke mi ngir mu nekk fay jàng lii de alxuraanul karim ngir gan ñakat xam ne kat ku baax kii sëriñ tuuba seexul xaddim ñii mu dëkkoo ñu mokkal alxuraanul karim lañ mu nekk itam liggéeykat di jàng ak a jàngale ndax kat fi mu bokk lool rek lañ xam moom soxna faati xujja mbàkke mi waajuru soxna aysatu mbàkke mbenn ngaabu mi moom itam mujj gi dëloon na ko ci ngaabu googu ndax kat foofu sax la doomam ji ganee àdduna di soxna Aysatu Mbàkke mbenn ngaabu mi foofu itam seexul xaddim amoon na fa daara ba bari na ñoo xam ne sax ci mag ñi foofu sax lañu muritoo wala fa lañ déparé seenu muritu wala foofu la njëkk gise ku baax ki sëriñ Tuubaa seexul xaddim ñu ràññee ci sëriñ Babacar Njaay Cargaan sëriñ Aline Diouf Lambaay ak sëriñ Moor Maane Mbay ci daaray seexul xaddim jooju ci dëkk boobu di ngaabu te seexul xaddim nekkoon fa ca 1917 nag Aysatu Mbàkke mbeen ngaabu mii nag ñu koy wax sëriñ Mbàkke soxna aan Mbàkke bi soxna Aysatu Mbàkke mbeen ngaabu mii ma tee dal lii di alxuraanul karim nijaayam jooju di sëriñ Mbàkke soxna aan Mbàkke mi la seexul xaddim wax mu jàngal soxna Aysatu Mbàkke mbeen ngaabu mi alxuraanul karim kon soxna Aysatu Mbàkke mbeen ngaabu ci nijaayam jooju la jànge alxuraanul karim ba mokkal ko lii di xam-xamitim ci nijaayam jooju la ko jànge kon mennum nijaayam rek mooy ki ko tëralal alxuraan jàngal ko ko bind kaamilub alxuraan waajuram sëriñ tuuba seexul xaddim génn na lii di àdduna ci atum 1927 mu jël léppam nag wala nijaayam ja jël ko jébbal ko taawu waajuram wa di cheikh mamadul moustapha mbàkke ci tuuba cheikh mamadul moustapha mbàkke moo eggale lii di am njàngam féetale ko ba tey ci loxoy nijaayam jooju bi soxna aysatu mbàkke mbeen ngaa bu matee dem kër sëriñ hababakar jaxate bu xuru mbàkke la ko cheikh mamadul moustapha mbàkke jébbaloon ngir mu denc ko ngir soxna aysatu mbàkke mbeen ngaa itim dem fa liggéeyal suñu boroom ci wàllu kër ba am na kii di sëriñ Ababacar Jaxate lii di doom foofu ci xuru Mbàkke benn doom la bu jigéen ku ñuy wax soxna ajaratu soxna jaxate bintu soxna mbenn Mbàkke ngaabu ak sëriñ Ababacar Jaxate kon benn bu jigéen boobu la am ak sëriñ Ababacar Jaxate foofu ci xuru Mbàkke mu wéy nekk xuru Mbàkke di liggéeyal sëriñ Ababacar Jaxate ba ni sëriñ Ababacar Jaxate génnee àdduna ñu jëlaat kii di soxna Aysatu yóbbuwaat ko ci dëkk boobu mu ganee àdduna di ngaabu jox ko fa ku ñuy wax cheikh ibrahima loo moom ngaabu cheikh ibrahima loo mi mook ma sàmba mbàkke mi caatu mamor anta sali mbàkke ñoo bokk benn waajur wu jigéen soxna faati isa cheikh ibrahima loo bu ngaabu am naag njaboot kii di soxna aysatu mbàkke mbeen ngaabu mii ñu ràññee ci ku ñuy wax soxna maam buso loo bintu soxna aysatu mbàkke mbeen ngaabu bintu cheikh ibrahima loo ngaabu soxna aysatu mbàkke ku ñuy wax sëriñ abdurahmaan loo ñu gën koo xam ci sëriñ moodu loo ngaabu ibnu soxna aysatu mbàkke mbeen ngaabu ibnu cheikh ibrahima loo ngaabu sëriñ moodu loo ngaabu moomu waajuram sëriñ abdurahmaan loo la ko tudde waaye gaa yi moom sëriñ moodu loo ngaabu rek lañ koy woowe soxna aysatu mbàkke mbeen ngaabu mi amaatoon na fa kaneen na jigéen ku ñuy wax soxna maam ami loo bintu soxna aysatu mbàkke mbeen ngaabu bintu cheikh ibrahima loo bu ngaabu kon ñett ñi la am ak ibrahima loo Lo bu ngaabu moom soxna Aysatu Mbàkke Mbeen ngaabu mi Cheikh Ibrahima Lo mi ñu ko dénkoon ci atu la génn lii di àdduna soxna Aysatu Mbàkke moom ngaabu ñu gën koo xam ci soxna Aysatu Mbàkke Mbeen ngaabu mu bokk nag ci caati Sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim yi ndax ci 1922 la gane lii di àdduna ci dëkk boobu di ngaabu te Seexul Xaddiim 1927 la génn àdduna kon moom ci caat la bokk soxna Aysatu Mbàkke Mbeen ngaabu mi dib yarkat nag dib jàngalekat liggéeykat ndax kan doona loolu rek la fi seen waajur wi sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim bàyyi te magam yi mu gën a xam kat ka waajuramum wakat moom loolu dong la gis ñu nekk fi di ko def mooy yar ak jàng ak jàngale ndax ndono loolu kat la leen fi xaadim rasul bàyyee moom itam yàqu ko ndax kat ci dëkk bii di ndakaaru ci élèves yi ñu tuddee étudiants yi kii di soxna Aysatu Mbàkke mbeen ngaabu daana leen taxawu ba sax bu masaa dem ndakaaru étudiants yi danañ xam ne soxna Aysatu Mbàkke mbeen ngaabu ñu gën a mën a jàng ndax soxna si xam na ne ëllëgum réew kat balaa defaru ay ndawam jàng te loola xamoon na ko te daana ci pousser lii di étudiants yi kon bari na ñu fi am lii di ndomba tànk bu ñu fayoon naar bi xoromam xam ne soxna Aysatu Mbàkke Mbeen Ngaabu wala buñ nekkoon ñu koy wax danañ xam ne seenum njàng soxna Aysatu Mbàkke Mbeen Ngaabu mi taxawu na ci lu baree baree bari ndax kat ba ñuy tuut tànk daana leen jàppaleek puuse di leen ñaanal boole ko di fab alalam di leen jox ngir bu ëllëgee ñu mën a tekki dara ci réew mi kon ci loolu la sax di jàng ka jàngale boole koog ñim bokkal xaadim rasul képp koo xam ne nii génn nga àdduna soxna Aysatu Mbàkke mbeen ngaa bu amutul benn yitte yitte bi kat mooy xam na ne yéen ñaar yéen a bokkoon xaadim rasul te njaboot ga nga am yéen ñaar yéen a ko bokk moo tax sa kër la daa dem toog fa ba sa mu xam moo ñàkk mag ngir mu taxawu leen ba seenum xel dellu si ñu xam ne seeni waajur wa demoon moom mi ngi fi loolu itim yitte la te soxna Aysatu Mbàkke Mbeen Ngaabu daana ko def ñi mu bokkal xaadimu rasul muy wàllu góor ñooñu itam joxoon nañ ko cër ba ñaare luñ masaa di def daan nañ ko ci laaj lii di xalaatam cheikh mamadul moustapha mbàkke cheikh mamadul faadal ba ci cheikh abdoulahat cheikh abdou xaadir ak sëriñ tubaa cheikh saaliwu mbàkke mi ñu jamonoon teeloon ba ci sëriñ soye bu mbàkke ak cheikh mamadul bachir nawoon nañ ab yaram itim ak ak jikkoom ba lii di doom itam bari nañu ko ko tudde ci njabootuk sëriñ tuubaa seexul xaddiim gi fop seeni doom itam jox ko ngir mu yar leen ndax kat li soxna Aysatu Mbàkke mbeen ngaa bu mii mel ñoom kat bu ko seen doom melee kenn du ne dara wala kenn du ne accam loolu itam ñim séqaloon seexul xaddiim xamoon nañ ko Seex Moodu Mustafaa moom faboon na yenn ci mag ñi sax féetale leen soxna Aysatu Mbàkke mbeen ngaabu ngir itam ñu koy xoole xaadimu rasuul Seex Mamadul Faadal itam daana def ñaare balaa def dara laaj ko xalaatam ndax xam na ne ñoo bokk xaadim rasuul te moo ko ca mujj cheikh abdul ahad mbàkke moom faboon na ñaari doomam tudde ko soxna aysatu mbàkke mbeen ngaabu mi cheikh murtada mbàkke fob na doomam tudde ko ko ba kim ko tudde sax bokkul na ci ñi mag njabootu cheikh murtada mbàkke jamono ji cheikh mamadul bachir tuddewu ko doom waaye faboon na doomam ju ñuy wax soxna sufi mbàkke bintu sëriñ basiiru mbàkke ibnu xaadim rasuul jox ko ko mu yar ko soxna aysatu mbàkke mbeen ngaabu moo ko yar ba mata dem kër mu yóbbu ko mu dem lii di kër moom soxna su fi mbàkke bintu sëriñ basiiru mbàkke cheikh abdou xaadir mbàkke tudde na ko doom sëriñ tuuba seex sohen bu mbàkke tudde na ko lii di doom sëti sëriñ tuuba seexul xaddim itam tudde nañ seen bàjjen bii di doom sëriñ seex saaliwu mbàkke ibnu sëriñ saaliwu mbàkke tudde na doom kii di soxna aysatu mbàkke mbeen bu mii sëriñ moodu maamun mbàkke moom cheikh abdoulahad mbàkke tudde na bàjjenam bii di doom di soxna aysatu mbàkke mbeen ngaabu mi sëriñ satu mbàkke bu cheikh abdoulahad mbàkke tudde na bàjjenam bii di doom di soxna aysatu mbàkke mbeen ngaabu bu mi sëriñ fàllu mbàkke moom sëriñ sohe bu mbàkke tudde na bàjjanam bi di doom di soxna ay sëtu mbàkke mbeen ngaa bu mi sëriñ basiiru mbàkke moom sëriñ tubaa seex saaliwu mbàkke itam tudde na bàjjanam bi di doom di soxna ay sëtu mbàkke ngaa bu mi kër cheikh ma sàmba mbàkke itam nañ kii di soxna ay sëtu mbàkke ngaa bu mi ñu ràññi ci sëriñ muhammadan jobbe mbàkke ibnu cheikh ma sàmba mbàkke tudde na ko doom sëriñ abdul baaxiyu mbàkke ibnu cheikh ma sàmba mbàkke tudde na ko lii di doom sëriñ abdou salaam mbàkke ibnu sëriñ ma sàmba mbàkke tudde na ko lii di doom sëriñ Mamor Mbàkke ibnu sëriñ Masamba Mbàkke tudde na ko lii di doom waa kër Mamor Jaara itam tudde nañ doom kii di soxna Aysatu Mbàkke Mbeen Ngaabu mi sëriñ Ismayla Mbàkke tudde na doom kii di soxna Aysatu Mbàkke Mbeen Ngaabu mi sëriñ Cheikh Penda Mbàkke tudde na doom kii di soxna Aysatu Mbàkke Mbeen Ngaabu mi sëriñ Mbàkke Faajama itam tudde na doom kii di soxna Aysatu Mbàkke Mbeen Ngaabu mi sëriñ Xaadim Mbàkke conférencier di sëtub Mamor Jaara itam tudde na doom kii di soxna Aysatu Mbàkke Mbeen Ngaabu mi sëriñ Mustafa Ceytu moom maam Cheikh Cheikh Anta Mbàkke itam tudd na doom kii di soxna ay Aysatu Mbàkke Mbeen Ngaabu mii sëriñ Sam Mbàkke Bundu la tudd na doom kii di soxna Aysatu Mbàkke Mbeen Ngaabu mii sëriñ Abdourahman Mbàkke moom Cheikh Mandumbe Mbàkke tudd na doom kii di soxna Aysatu Mbàkke Mbeen Ngaabu mi waa Mbàkke Kajoor di kër nijaayam itam tudd nañ doom kii di soxna Aysatu Mbàkke Mbeen Ngaabu mi ñu ràññee ci ku ñuy wax sëriñ Cheikh Mbàkke bu Mbàkke Kajoor tudd na ko lii di doom sëriñ Basiiru Mbàkke moom sëriñ Habibu Mbàkke imaam tudd na ko lii di doom sëriñ Moodu Mbàkke moom sëriñ Habibu Mbàkke imaam tudd na ko lii di doom doom sëriñ baara mbàkke bu ngaabu tudde na ko lii di doom sëriñ basiiru mbàkke bu bu tudde na ko lii di doom sëriñ ceerno mbàkke bu mbàkke kajoor itam tudde na ko lii di doom ñeneen itam ñu takku ci sët yéeg jarbaat yi itam tudde nañ ko lii di doom taalibe yeeg soppe yi itam tudde nañ ko lii di doom seex yi toppoon sëriñ tuubaa seexul xaddiim itam tudde nañ kii di soxna aysatu mbàkke mbeen ngaabu mi itam lii di doom ndax ne woon naa leen kat kii di cheikh mamadul moustapha mbàkke bari woon na ci mag ñi ñu féetale woon soxna aysatu mbàkke mbeen ngaabu mi ngir ñu koy liggéeyal di ko xoole xaadim rasool ndax kat ci caati xaadim rasool yi la bokk moom soxna Aysatu Mbàkke Mbeen Ngaabu mi ba tax na kenn ku ne sawar na koo tudde doom wala mu duppee ko lii di doom moom Astu Mbeen Ngaabu kon nag ci loolu la sax di jàng ka jàngale di yar saa bàjjen yiñ ko jox ngir tim bu ëllëgee jikko ji nekk ci moom mu man koo def ca ñoom ba seeni waajur taamu ko ci moom ba jox leen ko loolee ñoom bu ëllëgee fuñ mën a dem mën a yor jooju jikko kon soxna Aysatu Mbàkke Mbeen ci loolu la sax nag ba nim 1981 ci xilaaf ak magam ja sëriñ tuuba cheikh abdul ahad mbàkke soxna satu mbàkke mbeen ngaabu dëkk yim ëppoon li muy nekk ci dundam mooy xuru mbàkke gi ko cheikh mamadou moustapha mbàkke loon ci loxo loxoy sëriñ hababakar jaxate ginnaaw bi itim nekkoon na ci ngaabu ndax foofu sax la gane àdduna ci atum 1922 ñu jébbalaatoon ko jàmbaaru sëriñ tuuba ba cheikh ibrahima loobu ngaabu ginnaaw ngaabu itim nekkoon na tuuba mooy kër gi nga xam ne nii sax fi la njaboot gi dëkke di sëriñ abdourahman gën koo xam ci sëriñ Modou Lo Ngaabu ci Touba 28 ginnaaw Touba itam nekkoon na Ndakaaru foofu sax la génne àdduna ci atum 1981 kon ci ñeenti dëkk la ëppoon lu muy nekk di yar di jàngale ànd ak saa bàjjan yiñ ko joxoon ngir jikko ji nekk ci moom mu def ko ca ñoom ba tax na bu ëllëgee fu saa bàjjan dem ñu xam ne soxna ay satu Mbeen Ngaabu moo ko yar soxna Aysatu Mbàkke Mbeen Ngaabu mi ngi génn àdduna bisub altene fukki fan ak ñett ci weer wii di weeru gàmmu ci atum 1401 ci gàddaay gi altene fukki fan ñett ci weer wi di weeru gàmmu ci atum 1401 ci gàddaay gi dëppook muy lundi 19 janvier 1981 lundi 19 janvier 1981 ci hôpital principal bu ndakaaru ci feebar bu ko tëraloon moom soxna Aysatu Mbàkke Mbeen Ngaabu ay atam tolloon ci juróom fukki at ak juróom ñeent ci bokkoon ci caatu xaadim rasool yi dem ñu yëgal ko ki toogoon toogaayu sëriñ Tuubaa ci jamono jooju di Cheikh Abdul Ahad Mbàkke ñu jële jële ko ndakaaru indi ko tuubaa sëriñ tuubaa cheikh abdul ahad mbàkke moo wax rakkam ja cheikh abdul xaadir mbàkke mu jiite kii di soxna aysatu mbàkke mbeen ngaabu mii ñu denc ko ci wetu magam ja soxna faati ja mbàkke mi nekkoon taawub xaadim rasuul ci armeer yu mag yi tuubaa yi soxna aysatu mbàkke mbeen ngaabu ay xalifaam nag nii la tëddee sëriñ abdurahmaan loo ñu gën koo xam ci sëriñ moodu loo ngaabu moo nekk xalifab soxna mbeen ngaabu mu ànd ak ay magam ak i rakkam ngir ñu taxawu mbàkke mbeen ngaabu soxna Haysatu mbàkke mbeen ngaabu am na nag bis buñ koy fàttaliku muy fukki fan ak juróom ñaar ci weeru digg di bis bi mu ganee woon àdduna ci atum 1922 ci atum 1994 la njaboot ji dem waxtaan ak seen nijaay ja sëriñ Tuuba Seex Saalihu Mbàkke mi toogoon juróomeelu xalifa xaadim rasool di ko xamal ne sa rakk ja soxna Haysatu mbàkke mbeen ngaabu lañ bëgg wutal bis mu ne mat naa wutal lii di bis moom sëriñ Tuuba Seex Saalihu Mbàkke di wax njaboot ji itam nañ jël bis bi mu àdduna muy fukki fan ak juróom ñaar weer wi di weeru digg ci atum 1922 foofu ci ngaabu sëriñ abdourahmaan loo ñu gën koo xam ci sëriñ moodu loo ngaabu ànd ak ay magam ak lii di ay rakkam ñu taxawu nag seen bisu waajur wow di soxna ay sëtu mbàkke mbeen ngaabu foofu ci ngaabu màggal gi bu njëkk màggalug bëccëg lañ ko doon def ginnaaw bi nag la daayira yi waxtaan nag ki toog toogaayu soxna ay sëtu mbàkke mbeen ngaabu di sëriñ moodu loo ngaabu wala sëriñ abdourahmaan loo ñu gën koo xam ci sëriñ moodu loo kii di soxna Aysatu Mbàkke Mbeen Ngaabu mi bisam bi ñu yokk ci guddi gi ngir di ko ci fàttaliku mu ànd caag ñoom nag ñu koy màggal guddi ak bëccëg moom soxna Aysatu Mbàkke Mbeen Ngaabu foofu ci dëkk boobu mu ganee àdduna yaroo fa di ngaabu ci teewaayu mbooleem doomi soxna Aysatu Mbàkke Mbeen Ngaabu yi ak daayira yi ak turandooy soxna si ndax kat seen bàjjan ba yayoo na bis bi wala yayoo na lii di bis kon màggal gi ci 1994 lañ ko taxawal ci ndigalu Sëriñ Tuubaa Seex nag la daayira yi waxtaan ak sëriñ abdourahman loo ñu gën koo xam ci sëriñ moduloo ngaabu ngir dolli ci guddi gi ñuy ñaanal sëriñ mooduloo ngaabu wala sëriñ abdourahman loo ñu gën koo xam ci sëriñ mooduloo ngaabu mook ay magam ak lii di ay rakam suñ boroom sàmm leen aar leen te yiir leen ak mbooleem turandooy soxna ay sattu mbàkke mbeen ngaabu yi ak mbooleem soppe yi ak daayira yi soxna ay sattu mbàkke mbeen ngaabu yi suñ boroom am na ko man na ko yàlla na ngaabu jarbaatu sëriñ habibu mbàkke imaam ba ñetteelu soxna aysatu mbàkke moom sëriñ tuubaa seexul xaddim ñu gënoon koo xam ci soxna aysatu mbàkke mbeen ngaabu yàlla na yàlla yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem lii di jafe-jafe réew mi itam yàlla na ko suñ boroom saafara ci darajey aysatu amiin darajey aysatu amiin darajey aysatu